tey nag kàddu yi may yëkkati du sax dama koy jëmale tey waxagum sax ci kàddu waaye tey sama kàddu dafa jukk jëm ci benn jëmm jëmm xam ni dafa am fu ma ko tegoon jëmm joo xam ni dafa am bët bu ma ko doon xool ci tarixa Cheikhouna Tijani ci njabootu Cheikh Seydil Hadji dafa am fu ko àdduna teg àdduna bàyyi ko xel ngir waajuram ngir màgg gi yàlla màggal waajuram ngir sutura gi yàlla suturaal juróom giiru dundam eh, ngir sutura itam bi ko ñépp jox muy suñu maam seen Cheikh Ahmad Tijaan Al tey doomam ñëw toog fekk li fi ay fekk li fi ay maamam bàyyi muy lu rafet fekk lu rafet ci ëtt bi fekk rafet ci biir kër gi ñëpp teg ci seen loxo ñëpp tëye ko ñëpp di ci ànd pour nekk benn waaye tey doomam jooju moo ñëw lépp loo xam ni maam Cheikh liggéeyoon na ko sëñ Moustapha mi ngi koy yàq il est temps ñu wax ak yoon rek sëñ Moustapha mi ngi taxaw di tas kër njaboot gi dama bëgg ngeen bàyyi seen xel ñaar ñun taalibe yi ñun ndaw ñi mag ñeeg ñëpp ku nekk am nga droit bëgg ku la neex ku nekk am nga droit fonk ku la neex waaye na nga fonk ki lay tëyloo sa mbokk ndax ka lay wax ne la yàllaa ngi nii na fekk mu tëye ay mbokkam ki lay wax ne yonent bi sallallahu affaire bi ku ne xam na ko duggul ci yëfu kenn lijjantiwul yëfu kenn xalifa bi xoolul yëfu kenn jàmm la yéene ñëpp jàmm la njabootam yéene ñëpp képp ku fi ñëw rek sëñ Moustapha dal na ci sa kaw muy suñu maam al ami ba mu génnee àdduna li mu njëkk a def mooy jël seede yu ñaaw teg ko ci kawam ku ñëw rek def nga ko noonu sëñ pap euh, nekk def na ko ko kon yaakaar naa ne tey du moom mooy jox kenn bon exemple déedéet parce que Cheikhouna Tijani mooy tànn ay xalifam ginnaaw bu ko yonent bi sallallahu alayhi tànnee moom moo tànn ku ko neex mu teg la ci fauteuil bi ku mu bëggul nga toog ci doo ci toog kon yaakaar naa tey bu ñu jëlalee euh, xalifa bi tegal ñu ko muy Serigne Babacar Sy Mansour bi xilaafa bi mu toog nag képp ku jël werd xawma jox na wax na leen charte wird yi xaw waxuñu leen charte wird yi waaye sa xalifa bu waxee ba pare nga tegg li sa xalifa wax teg ko fële na la woon dogu nga ci tarixa bi ak koo mënta doon dogu nga ci tarixa bi loo mënta def dogu nga ci tarixa bi terewuñu kenn nga bëgg ku la neex terewuñu kenn nga ànd ak ki la neex waaye maam Seydi ak benn njabootam googu nekk benn yàgg ànd ci benn yàgg ànd ci juboo yàgg ànd ci suturaalante yàgg ànd ci defante jàmm kenn mos kenn déggu leen ci dara kenn dugg ñu ci yëfu kenn ñi ngi yem ñi ngi ànd ñi ngi ànd ak seen sutura bu ñu amee kenn xamul bu ñu ñàkkee kenn xamul nga woo mbooloo àdduna yëpp ñëw toog di la déglu nga war lu toll guddi gàmm di leen wax yonent bi yonent parce que guddi gàmm loolu ko tax a jóg war a waxtaanee yonent bi sallallahu alayhi wa leen wax maam Maodo lan la liggéey ba tax ñoom ñu koy topp lan leen wax yoon di mu ñu ci yàlla yoon di mu ñu ci yonent bi sallallahu alayhi wa nga jël loolu lépp teg ko fële jëndee koy affaire fanatisme ni kilifa nga ñëpp jox la cër nga taxaw di xas sa xalifa maam di xas sa xalifa baay dama ni sëñ Moussa ko yaa ngi dugg ci loo maîtriser wul bàyyil xaste bi bàyyil wax yu ñaaw yi bàyyil wax yu bon yi xalifa bi yàlla ko fi teg bu la neexee yàlla moo ko fi teg ku mu naqari yàlla moo ko fi teg Moustarchidine jotewuñu ak ñoom dara isole waaye wax leen ak seen waa ji yàlla gisatul yonent bi nguur lay wut bëgg man la diw kenn soxlawul loolu sa baay liggéeyu fi loolu dafa liggéey lu rafet ñëpp respecté ko ñëpp jox jox ko cër mu téye drapeau l'islam yàlla suturaal ko ba ni mu fi génnee mi ngi téye drapeau l'islam yow sëñ Moustapha Sy nga ñëw war ñu wan bon exemple ñun ñu koy xaar ci yow taxaw di la xaar takk suñu ndigg takk suñu lépp di jaar jëm ci yàlla lu dul ngeen nit ñi teykat bam boo jëlee waxu xalifa bi nga teg ko fële ci sa coobare bopp au moins sax bu nit ñi ñëwee ba ñëw toog ci sa ci champ de course boobu nga xam ni sa wajur fa la daan toog naan nit ñi yàlla nee na yonent bi nee na sama maam nee yow nga ñëw ni dëjj toog foofu amoo looy def lu dul di xas sa xalifa baay amoo looy def lu dul di xas sa xalifa maam amoo looy def lu dul di xas yonent bi sallallahu alayhi sa bopp yeddaatal sa bopp xalifa bi boo ko xasee bëgg nañ ko soo ko xasul bëgg nañ ko boo ko seddalee lu bon bëgg nañu ko boo ko seddalee lu ñaaw bëgg nañu ko boo ko waxalee lu baax it bëgg nañu ko kenn mënta wax ba duñu ko bëgg ndax mënuñoo bëgg Seydi Hadji Malick bañ dogetam yàlla tere xalaatuñ ko mënuñu ko bëgg bañ li meññee ñëpp topp la danga nekk nga ni kilifa nga ñépp bàyyi la xel nga ñëw sa kër maam gi yàq rek yàq rek yàq rek Tiwaawan bu la neexee nga indi fa lu la neex parce que dëkkoo Tiwaawan dëkkoo Tiwaawan doo jum ba dugg Tiwaawan sa xabru wajur sax doo fa dem dëkkoo Tiwaawan sëñ ma sëñ Moustapha doo dem Tiwaawan gàmmu lay indi Tiwaawan bu gàmmu paase nga gàddu say bagaas demaat sa yoon bu gàmmu paase nga gàddu sa bagaas demaat sa yoon bala ñuy xam ni mën nga nag sëñ Moustapha dëgg dëgg dëgg dëgg ndegam yow ku toog nga xas ko bàyyi woo al bàyyi woo kenn bàyyi woo sëñ Pape tey nga mën a taxaw naan sëñ Pape Malick boo ko def xalifa boo ko def li xalifa bi bu bu leen ak xam dale seen mujj du rafet ku ci ak xam lu baax rek lay wax lu baax rek lay jëf lu baax rek lay def nañu leen xoolaat jikko yi te ñu xoolaat ki ñuy topp kan la xoolaat kan la ñuy topp jamono mi ngi dox nit ñi ñu ngi dem képp ku leen yóbbuwul ci yàlla laa ne ba leen ko fa ngeen seeti ku leen di yóbbu ci yàlla ndax mënoon ni yow kilifa nga àdduna yëpp di la di la déglu nga jàpp sa xalifay bàyyi sa xalifay maam di leen di ko tam dëmm ndax lii tam dëmm sax sëñ Pape Malick ba ñuy ànd depuis tànk defandoo lu nekk di ànd guddi ko seedan seedante sa cofeel ci sa morom nga taxaw naan moom moo ko rey mais yow li nga wax est-ce que nga li nga wax ampleur bi nga wax est-ce que waxtaan nga ak say mbokk est-ce que sa soxna yooyu la tiim sax wax nañ la yow ni la li nga wax erreur bi nga wax nan la toll su fekkee këtee yu toll nii teg takk ko ci deru baayam ci deru uh, liiwam ca ngeen a waroon a jóg ca seen làng googu ngeen toog noonu xawma sabar la xaw ma lan la fa ngeen waroon a jóg dem ñibbi seeni kër te te jàpp ci seen ndey yooyu ak seen baay yi ndax kilifa bu mat kilifa day génne ci gémmiñam la waxu kilifa kilifa bu mat kilifa dafa am lu mu war a wax ak lu mu warta wax li dara gënul ñaaw si àdduna àdduna yëpp nag taxaw di la déglu nga jël kàddu yu bon yu ñaaw yu salte yu yiwut yu toll nii kàddu yu màgg yoo xam ne kenn xamul kàddu yu lumu ni koy teg ci xalifa dama ni nit koo xamul bëggoo ko sax mënu ko digérer sax doo jël lu bon lu toll nii di ko teg ci deram doo jël lu bon lu toll nii naan danga koy teg ci deram waxuma la xalifa bi nga xam ni fa mu toog fa la toog nekk ci yoonu yàlla jotewul ak kenn daara il est humble il est respectueux ñëpp ko bëgg ñëpp ko jox respect ñëpp ko naw ndax dalam ndax teeyam ndax ñàkk dugg ci lu yoonam nekk nga nekk fi amoo tus looy def lu du naan da nga koy xas da yaakaar ne boo ko xasee dina tax ñun ñu topp la yaa nax sa bopp nax nga sa bopp ñi lay jay bokk ma ci ku duut baaraam tarixa bi dinaa la duut baaraam xalifa bi bàyyi leen ko bàyyi leen ko dafa toog fi mu toog songul kenn attaqué wul kenn yéen xanaa moom moo leen gën a gore xanaa njabootam sëñ Moustapha ñoo la gën a gore ndax au moins ñoom jox nañ sa wajur ci yàlla ñaata at gisoo sa papa mu interdit la ni la bëggatu la gis ñaata at keroog ba mu génne àdduna ba du woon al amin boo yegsee fekk ay say rakk suul nañ ko ndax dañ ne san papa dana woon bëggu laa gis duñ ko xaar waaye al amin moo insisté ni da ngay assister sa sa sa enterrement papa ñu di la woo di la woo di la woo ñëwoo kon yow mënoo xas bàyyi kenn waaye kër Seydi soo foogee ne dañ lay bàyyi nga ñëw jaxase njabootu Serigne Babacar Sy njabootu euh, njabootu alaaji Abdou jaxase njabootu Serigne Babacar njabootu mambal xaw mi tu te kenn du la ko may kenn du la ko may kenn du la ko may loo bëgg rek saa waxee rek dina la tontu. trop c'est trop jusqu'à kañ kañ ngay arrêté kañ ngay arrêté sëñ Moustapha kañ ngay arrêté kañ ngay arrêté lu toll ni sa xalifa maam nga ni da koy toroxal yow yaa torox ba ni todd yaa torox ba ñu todd parce que torox tànge paaseetul doomu soxna yëpp bu ñu toogee waxuma laa lu ton ni guddi gàmmu naan yàlla nee na yonent bi nee na mën a xam yoon bi ñuy jaar ndax nit ñi soxlaatuñu leen yàllaa ngi ñuy jàngal àdduna suba gu ñu xëyee li ñu soxla mooy ku ñuy yóbbu ci yàlla li ñuy soxla mooy ku ñuy wan yoonu yàlla li ñuy soxla mooy jullit bu taxaw ni ñu lii ngeen nekk baaxul na ngeen topp seen wajur yi na ngeen di julli na ngeen jaamu yàlla ah def leen ñaan yi de bu ngeen ko defee yàlla musal leen ñaan yi kat bu ngeen ko defee li yéen ñi nekk ci sëy nekk leen ci néegu sëy ñun li ñu soxla au lieu que yow ngay jeune war ñëw la mu wax taxaw indi yow sa maam li mu bind te àddina yëpp di ko jàng muy burdu àddina yépp di ko wax nga war ko indi nit ñi jeunesse bi la topp xam ko nga ñëw jël lépp teg ko fële di solo ko simmi ak di xas sa sa xalifa yu maam sa xalifay baay ci famille bi yépp yow yaa ko fi def si Malick yow yaa ko fi def xas lu nga sañ nga ko def nga lu fi kenn mësta def lu fi kenn mësta def ba Afrique di Afrique ba monde bi monde fu nekk am na xalifa waaye jàpp sa xalifa naan ko yaa rey sa sarak loolu amul fenn fii la am ci Tiwaawan te yow yaa ko fi indi lii fii la am te yow yaa ko fi indi ñu wax nga ne xalifa bi dala bëgg a rey xalifa bi lu mu lay doyee ba lay rey yow ban intérêt nga amal Tiwaawan sëñ Moustapha ban intérêt nga amal Tiwaawan ban intérêt nga amal Tiwaawan Tiwaawan du ñu def dara ba nga jël sa loxo dugal ko ci gàmm du xew nga jël sa loxo dugal Tiwaawan programme du xew nga jël sa loxo dugal Tiwaawan dara du xew ba nga jël sa loxo dugal ko ci biir Tiwaawan toujours yaa ngi seetaan waa Tiwaawan toujours yaa seen defet te pourtant ñi ngay xool seen defet sa waajur yow fa la bokk ba nga sant mënul wax mënoo wax a wax ba am sa sant bopp laa la wax mënta ne si googu nga sant nag moo tax ñu jox la cër boo santoon beneen sant kon dinañ ko digaale ga ba mu saf sap il faut nga arrêté bàyyil xalifa bi xalifa bi du sam moroom du sam di di xas yonent bi yéen a yam ah yéen yam benn àtte parce que doo ñëw nga ni jullit nga sa moroomu jullit nga war a wax ci moom lu rafet ngay wax ci moom lu bon yow léegi yow lan nga ñuy jàng lan nga jàngal gàmm da daan jot ñuy déglu sa papa suñu xol di féex ndax li muy wax déglu fii euh, sa xabru jumay maam suñu xol yi féex mais yow léegi da nga jël gàmm bi fanatiser ko def ko lu la neex gàmm bi mel ni cérémonie yu kenn xamul bàyyi ko sëñ Moustapha arrêté ko xalifa bi nit ku baax la nit ku yiw la nit ku gëm yàlla nit ku toog fa mu toog àdduna yëpp lay mbamb démb ba tey kenn nelawul Europe bi rek feneen ak feneen kenn nelawul ñëpp yow la ñuy waxtaanee ci jëf ji nga jëf ñëpp yow la waxtaanee ci wax yu ñaaw yi nga génnee wax yu ñaaw yi nga jël ko teg ko ci ko xam ni mook sa say say wajur ñoo bokk mook yow ñoo bokk nga jël ko teg ko ci daram ndax lan parce que tu ne l'aimes pas boo ko bëggul yow yow la yow la concerné kenn du forcer kenn mu bëgg kenn kenn du ne kenn danga mooy bëgg par force waaye bàyyil jàmbur boo ko bëggul bëggoo ko boo ko bëggul bëggoo ko nga ba ko ñun bëgg nañ ko ndax ñun maam lañ koy xoolee bëgg nañu ko ndax ñun alaaji abdu lañ koy xoole bëgg nañ ko ndax maam Habib lañ koy xoole waaye bëgg nañ ko waaye ndax maam ba Balxaw mi lañ koy xoolee boo leen doon xoolee bët yooyu di ko xoolee sa baay boobu kon tey lii nga wax doo ko wax lii nga wax kon tey ji doo ko wax sëñ Moustapha sëñ Moustapha dama nga uti conseiller dama nga uti ku la conseiller dama waxaat ak yow dama nga wuti ku la defaraat ba nga baax parce que fii li fi nekk bëri na liñ fiy nëbb di ko nës na sal bëri na mais duñ leen mayet ku fi jëlati sa kàddu teg ko ci tarixa bi wala nga teg ko ci yanant bi dinañ la wax li la war a wax parce que lu ëpp tuuru il faut arrêter sëñ Moustapha dañ ànd ñëpp arrêté leen il est temps dafa doy dafa doy on en a marre lan mooy seen problème bu ngeen jógee rek ŋànk njabootu Seydi Hadji Malick lii gàcce la yow war nga ruus lii keneen moo waroon jël kàddu yu ñaaw di ko teg njabootu Seydi di Malick waaye yow waroon nga kooru sa def ndax keroog bi sa waajur génne àdduna ñii ñoo leen taxaw ñii ñoo leen jàppale tey nan danga leen danga koy xas xasoo ko sa bopp nga xas ndax parce que lu bon ku ko am rek loola ngay maye ku ne la nga am moom ngay joxe ku ne li nga am lool ngay joxe boo amee mbaax mbaax ngay maye boo amee mbon mbon ngay maye boo amee lamine wu ñaaw lamine wu ñaaw rek ngay génne saa boo waxee ñu ne lañ lay waxati na gulu guddi yonent bi ñuy xaar nga waxal ñu ci yonent bi ngay ñëw di sa xalifa sa xalifa wajur seen bopp nda ngeen xool ñi ngeen di àndal xool ñi ngeen warta àndal gis nga kuy toog di tam dëmm ay nijaayam bu ëllëgee mu xas loo leen seen bàyyi kuy toog di tam di xas di jéñ rey nit ay mbokkam bu ëllëgee mu rey loo leen seen mbokk seet leen ñu baax ngeen ànd ak ñoom ñi nga xam ni yóbbu leen ci yàlla baleen leen jamono ji àdduna bi dafa tas ba pare te jeex ku la yóbbul ci yàlla bàyyi ñi nga xam ne dañoo nekk fi mel ni ay indo ci kaw nit ñi di woote ay mbumbaay yoo xam ne kenn du fa waxtaan yàlla kenn du fa waxtaan yonent bi ñun jamono yi ñu toll dégg dafa bari yàlla lañu soxla ku ñu ko wax mais pas kuy xas ay xalifa soxla wu ñu kuy xas ay xalifa dégluwuñu kuy xas ay xalifa wax ji ba ilaa yomal xayaam dootul fay dootul fay dootul ku la conseiller utal ay conseil nga teg leen bala ngay wax ñu wax la boo ne lii nga war a wax ñu mën la cee génnee sax ne la lii nga war a wax du waxu kilifa kilifa dafa am lu mu war a wax waaye nag xëcc ci kilifteef ak yàlla def la kilifa du benn yàlla bu la defaree kilifa dina la sàmmal sa kàddu dina la sàmm dina la sàmmal sa lépp sàmmal sa cër sàmmal la lépp naw la waaye yow nga ni kilifa nga wax lii nga wax kon war nga xoolaat sa bopp ndax am nga cër ci sa borom boo amoon cër siiru ba rocc nañ ko yàgg na su fekkoon ne am nga tuuti cër ci sa borom cër boobu nga am gëmal ni suñu borom rocc na ko ba mu set moo waral nga wax lii nga wax tey moo waral lii nga wax tey nga wax ko nii nga fi def sa baay génn àdduna nga jàpp sëñ euh, maam al amin xas ko fi yàq ko lu ne ba njaboot gi jóg dal sa kaw nga doog a calme tey sëñ Pape Malick nga taxawaat di ni da xas xalifa bi li nga wax dafa ëpp li nga wax dafa ëpp jàmbur yee ko wax ci àll ba ñu di ko dégg waaye du yow yaa ko waroon wax wax nga wax ju ñaaw wax ju dul fay ba ilaa yamal xiyaam xaw ma lii lu ko jar ci àdduna dara jaru ko ci àdduna dara dara jaru ko maa ngi jégalu bu baax nag ci vidéo bi bu baax waaye li nekk sama dama koy génnee duma ko denc dama koy génnee dama koy wax saa si nekk ñu jóg dal ci kaw lu nekk na ngeen xam ne xalifa bi bu ñu dalee ci kawam ci ko Seydi Aj lañ dal ndax moo ko fi teg bu ñu dalee ci kaw ci kaw Serigne Babacar Sy lañ ko dal ndax moo ko fi teg ndax moom la doon ku fi toog rek ndono nga fi toogee yow moomu toog nag comme yow nag yow danga am say sa sëriñu sa maamu bopp am sa dereetu bopp am sa yëfu bopp bu la neexee nga wax li la neex waaye yàllaa ngi gis lépp yàlla ngi gis ñëpp jàmm yàlla defal ñu sutura yàlla tàppe suñu xol yi def ci jàmm def ci yiw def ci yéenante lu baax yàlla nañu yàlla sàmm ba lépp lu ñuy wax ñu di ko xam yàlla nañu yàlla sàmm ba suñu làmmin yi mu sàmmal ñu ko saxal ñu ci tarixa Cheikhouna Tijaani ngeen xam ne yéen ñi jël wérd na ngeen delluwaat laajtewaat charte yi lan la parce que ñàkk xam charte yi moo waral ngeen di dund tàccoog di kontaan dem leen ngeen jàngi charte yi nga xam ne Cheikhouna Tijaani am na yoo xam ne wax na képp ku jël wérd nga dal ci kaw sama sama xalifa nga dal ci sa sama kaw koo xamante ni si man la jokk dagg naa sama diggante ak yow sama diggante ak yow dagg naa ko noonu mu koy daggee nag noonu lañ koy daggee ci yéen ñii di toog di tàccoog di fekkee koo xam ne day xas xalifa Cheikhouna Tidiane na ngeen arrêté ngeen dem jàngi charte yi ci tarixa bi xam li tarixa bi bëgg ak li tarixa bi bañ bu ngeen ko xasee ba xam di ngeen xam fi ngeen di teg seen tànk ku leen yóbbuwul ci yàlla ngeen bàyyi ko fa ku leen yóbbul ci yàlla rek baleen ko fa ngeen dem seeti ku leen yóbbu ci yàlla àdduna bi bu leen nangooti kenn du leen def jaam di leen taqal buumu jaam seenu jaam di leen diri ngeen di topp ñuy xas man waaye yow di nga xas sa xalifay maam ba pare ma lay topp lu ma lay yal na yàlla dolli ñu sutura yal na ñu yàlla taxaw yal na ñu yàlla sàmm yal na ñu yàlla aar yal na yàlla muccal ñu musal ñu ci lépp loo xam ne lu bon la ak ñaawteef di ñaanal suñu xalifa ak ay rakkam yëpp ak njabootu Seex Seydi Hajji Maalik yi topp ci ginnaaw yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla aar yal na leen yàlla taxaw yal na leen yàlla musal muccal leen lépp toogaay bi xalifa bi toog yal na ko fi yàlla dëj yow suñu borom yal na ko fi dëj mu mel guy liggéey bii nga xam ni mi ngi ci yal na ko yàlla jàppale bu mu mën koo yeggali ak xel mu dal yal na ko yàlla suturaal yàlla taxawu ko yàlla mën na ko yal na ko yàlla def dañ ko koy ñaanal ci xol bu sedd guy guy guy guy guy yàlla defal ko ko dañ la koy ñaanal lu ñu julli ñi ngi lay ñaanal sa jumaa ni néegu yàlla sa maam commencé ko woon yow sëñ Moustapha nga yor lu dul jeex sa dërëm dugg ci sa jumaa maam ji te nga ne yow taalibe te nga ni si nga sant sam ndaw la yëpp dajale seen xaalis ci famille bi yëpp nag ba ci sët sëtaat yi sax dañoo cotiser dem joxe ci jumaa ji sa dërëm duggul ci jumaa ji nga taxaw noonu yow naan da ngay xas xalifa bi dama yow wax ñu ban ban tarixa nga bokk parce que ñun loolu lañu bëgg xam ban tarixa nga bokk man maa koy metuma man sëñ Moustapha cofeel ba ma amoon ci yow fierté bi ma amoon ci yow di wax sëñ Moustapha di la déglu di déglu say audio dama am gàcca depuis quelques années dama am gàcca ci yow dama am gàcca dama am gàcca sa wajur nekkee wu fi woon lii référence sa ñëpp naw ko adduna yëpp naw sa wajur ñépp nga ñëw lépp lu mu liggéeyoon nga ne danga koy yàq yàqule ba adduna yëpp yërëm la di nga yàqule ba ñépp yërëm la sa gàmmu gi nga def xaw ma gàmmu la xaw ma xasta la am na neneen nuñ ko waroon tuddee xaw ma pëjoomu lan la waaw man daal yal nañu yàlla defal jàmm yal nañu yàlla dolli sutura yal nañu yàlla taxawu aar ñu yiir ñu ñun ñëpp ñuy ñaanal suñu xalifa bi nag heure bu ñu jullee nañ ko ñaanal Cheikhna Tidiane loolu la ñu sant yàggal ko fi jumaa ji mu taxawal nga xam ni néegu yàlla la maamam taxawaloon ko moom mu ñëw waroon a jël xelam def ko ca leneen mu ni lii lay yeggali dama ni nañ ko jàppale ñun ñëpp mu yàggale ko muy ndamam di ndamu maamam di ndamu lislaam di ndamu kër diine jëpp nit ku baax day seet lu baax mu di ko roy day xool lu baax mu di ko roy yal na ko yàlla jàppale maa ngi nëm maa ngi jéggalu ñëpp di nuyu yàlla seydina muhammad wa sallam